neex yow dafa am lu may bu baax nag. <laughs> ñooxu yombul de. loolu laa bëgg de ndax ñaari xaritu jëkkëram laa. xaaral ma tegal la li nga ataay ji nga naan ba suur. loolu laa bëgg. yow mbégte gi ma am ci yow aw ma ko fen. loolu laa bëgg ba mu neex. xam nga lu ma neex ci yow. Hmm. premier jour ma doxaan la nga accepté. loolu amul fen. Ah, loolu xew leen yaay ki ko def si monde bi nag. <laughs> dëgg neexul ah? paa may naa la portable bi. cim man loo ma may lu ne jar na xam nga lan moo tax. Hmm. xam nga fan la may jox. Hmm. jour bi sama yaay di bëgganteeg sama paa jour boobu rek la ma jox. sama yaay nee na fat fat bi dafa ñëw rek asonné ah, que maire bi miir rek mu attaqué. xam nga maire bi ndaanaan hmm. loolu nag ma jox ndaanaan gi ci maire bi moo nekk ci yow. naa ko def moom très ah? am na loo ma digoon de. yow ma indil la ko surprise laa la defal bu neex. ah mu ngi nii ci saag bi. waaye xool bu dee ay nax sax neex na. yow kenn du la nax ndax ñu ñaare la ñoo ko yor ah waaye mënuñu dara. waaw mais po yow loo ma andil nii. xanaa ngalam. kii nag mooy or original. yii de la jéegi bëgg. ah ak woyu yi. yii mooy may xam nga long-long long-long. ñu sax suñu ancêtre suñu. waaw yéen waaw ay long-long. ama ndaw lii lan la nii yow. Ah? lii lan la. lan la si nag. soxna si eh eh waxal yow yaboo ma sax ama ma yab yow yaay andi jigéen sa àll ba andi ko sama biir kër ma ma toog ak yow ba dala teg loxo. kër gi maa fiy jeeg kër gi man maa fiy jeeg yaa ngi may dégg xam nga lan laa a yëgal wax ji lu ko guddal lu ko gàttal na jóg génn kër gi. ni yow kii dafa def wala la. eh na jóg génn kër gi. deuxième dame. mosuma sa kaw mais na jóg génn kër gi boo kër gi laa wax may ma ñëw. ay moom di nga xam ne lépp dëgg la. mosoo xam sama tàppaar wala tey di nga xam ne maa la gën a bàyyi eh lan la yow lan la lii lan la la def ah bàyyi eh waa kii aw aw la kat bàyyi bàyyi mooy deuxième dame Pape xanaa rabu bëri ko moo fi taxaw mooy deuxième dame eh aw fat chey ah eh taawal ama ndaw a bon ama ndaw aw daal fas naa la changé benn affaire alima waa aw fi dimba lépp uxey deaat see bon yi aw dóoru aw daal boo xanaa bon rek ama ndaw bàyyil une doo ko bàyyi mukk àndax moom rek la dem demal ma aw eh aw nag ka ñeme laa ka dëgëru fit daal ah moom da la xamal ne daal kër gi amul kilif ba u ñëw in ràcc in la def si laliñ ne kër gi am kilifa nag hey kër gii moo la kër gii am kilifa du digg naa ba baax li ma xam naa nag dama bëgg digg na ma kër si biti ak sa yow xol yi est ngi digg ba baax li ma la fat soy eh baa la wax ma li la rek góor gi dama ne kii du génne aw mën naa ce que ma xam nga kii. est-ce que xam nga ko bëgg kaa xam dama a xam. kii bàyyi bon kii la ma kaa doy xam. sa tab lébu ndooy la. maari mërëm ndooy. kii Alassane ndooy moo ko jur. yaa Awa mooy yaayam. yaa Aliou Menga mooy maamam. dëkk Bargny cosaanoo Bargny la doome Bargny la rakki Bargny la maame Bargny la nijaaye Bargny la bàjjane Bargny. Eh, xam nga ko see bal ma rey amandaw xam. na ñooñu ñëpp nekk say maam man moom yoon nekk est-ce que ay ma digg kër gii daa am kilifa te maa la kilifa bi ma kër ji nekk si biti daawam ma ne du génn waaw waaw waaw eh, dama ne sama eh. yaay bi ngay bëgganteeg moom daa nga daan jooy jooy nga ko guddi jooy ko bëgg yow laa wax sama yaay ma ko wax sama yaay moo ne ma carrément ah, sa baay dafa daan jooy sama kër guddeeg bëccëg ah. waaw waaw léegi ba sa yaay ñëwee na ma fekk waaw yow am ndaw eh. jëlee sa ko yow bàyyi ko bu ko laal. kër gi de dañoo ko génn. soo ko jël ci yëf yi. soo ko soo ko jël naa du fi am fii benn naa fi taxawaale muy man. kër gi ci biti. non non dégg ci biti sa xaj. waaw ba da. jëndee ñu ma kër. non waa kan def jëndee ñu ma kër. kaay boobu ngeen. ah ma jëndee ñu ma kër ah ma. jëndee ñu ma kër. yow amoon na demoo fen laa la wax. booy nga defoon ba nga defoon booy nga defoon bàyyi ma sama yoon. da nga demoo fen yow da ngay jaay tàmbaam wala la yow xamoo da ngay ngay tuxatal naan mu dee mu la tax a amul fit di nga xam ne maa la ko ëppalee foofu. ah bon da ngay daf daf gën a daf maa la gën a ma si garab ah, eh, eh, gi laay. final. Eh, a. maa ko gënoon. bàyyi ma si garab gi maa ngi fii toog di la xaar yow. maa ngi fii toog di la xaar. yàlla naa dee si kaw garab. yàlla naa dee si yow. bàyyi naa yàlla naa fii laa dëkk fii laay añee fii laay reere fii laay ndekki. yaa xam bu soobee yàlla ci biir nga may fekk. waaye kii ne da nga ne maa a capable. baba doole naa leen di nga xam ne dina xumbuta dagal. loolu dinañ ko seet fii laa koy andi mu dëkk ak man si kaw garab yi yow ngeen nekk ci suuf. doo toog fi amul leen na benn njariñ attaaye attaaye. attaaye ji de doo ko naan. fii laay final. fii laay final. yow sama yaay defal